déclaré na candidature am mm-hmm. presque commencé na li ñuy wax pré campagne am sax mën nañ koo wax mm-hmm. commencé na nemmeeku turam mm-hmm. xanaa du ñu dem nag ci ay convocation ak ay audition ay procès yu kenn xamul waaw mais loolu moom man yoruma agenda waaw non mais xanaa loolu justice moo ko yor loolu mais loolu kay waaw justice moo ko yor mais xanaa loolu ah, mais xam nga malheureusement aussi ce dossier looloo tax mu xaw a complexe parce que tey bu fekkee comme ni nga ko waxee parce que yaa ngi ciy anticiper si demain il est convoqué les gens vont dire que campagne bi mu démarré tournée bi muy nef moo tax ñu empêché ko di ko sonal et conso donc Sonko dem na tey et il di dit discours bu mujj mu ne man bu ma doon dem dëj sa nit ñi dañ may topp su ma newoon nit ñi xëy leen sol lu xonq sa ñëpp a koy son ainsi de suite et ce qui montre arogan sam côté boobu loolu la parce que dem na ba xam nga boo taxawee ci réew nga ne benn magistrat ñemewu ma tëj ne serait-ce que ça pour donner l'exemple loolu tey kooku waruloon toog sax di naan mu ngi tal ay nemmeeku tur. c'est que non je te dis. mais loolu kay loolu ku deful dara kay sañ nga ko wax non non ku deful dara ah. non non non non non mais bi mu koy wax dafa am si lu mu ko fekk. mais ku deful dara non boobu deful. mais ku deful dara non kañ la Ousmane Sonko l'affaire Ousmane Sonko intéressé le public mooy bi affaire Adji Sarr amee. la nit ñi di lijjanti ay dossiers yam si côté justice mais sinon Ousmane Sonko n'est pas un délinquant parce que man xamaluma ko benn. préjudice bu mu def dans le passé wala benn kii infraction bu mu causé mais tey def na fee boo xam ne te man bokkuma sa ñuy toog ñi nga xam ne dañuy exploité wala di ci wax ainsi de suite que dëgg bu ñëwee da koy wax rek. Mhm. mais Ousmane Sonko man dama jàpp ne c'est un Sénégalais comme nous autres am honneur am njaboot am ay soxna donc tey am na loo xam ne débat boo xam ne man duma fa yegg ak moom du ma ko ko waxal sax même bu ma ko xamoon parce que yarewuñ ma noonu mais Ousmane Sonko moo waroon honnête avec lui-même par rapport à tout ce qu'il est en train d'incarner pour ce pays ak jeunesse bi li mu leen gëmloo li mu leen jaay yëpp tey waroo mun a ñëw Pape dama la ne bi président de la République di mbas mi duggee mu war a jël ay mesures dégluwu la te pourtant journaliste bu mag dégluwul peut-être keneen ak keneen dégluwu ma man recevoir wu ma recevoirul mais Ousmane Sonko dafa am lu muy représenter Sénégal te loolu ñëpp ko ko nangul dafa bokk ci kilifa yi ñu woo laaj ko xalaatam noo gisee mbas mi quelles son les mesures yi ñu war a jël war naa def couvre-feu d'accord nga si mu ne waaw bu ñu defee rappel gëstu Ousmane Sonko ndimbal li président doon jël sax moo tax ñu yokk ci quinze milliards mu ne yo tuuti na de cinquante milliards à à soixante-cinq milliards c'est sa proposition président de la République validé ko mais yow privilège boobu yëpp nga am ko mhm. amoo looy def lu dul en plein couvre-feu sa statut de tout nga teg fële tàgguwoo sa jabar say jabar sa laay wax fi ngay jëm tàgguwoo sa chauffeur ndax yor nga lu minimum quatre chauffeurs sa kër yor nga cinquante garde du corps sa kër parce que Sacré-Cœur laa dëkk ni moom tout sa monde là sa parti waxu leen foo jëm say mbokk waxoo leen foo jëm say xarit waxoo leen foo jëm taal sa oto en plein couvre-feu violer ça dugg si kër bu ñu la woon yaa fa rey nit sax nit ñi war nañ mun a gëm loolu ba ba procès di am parce que toogul këram bañ ne ko am na ndaw su lay jiñ fee dara il faut que aussi les gens soient justes avec eux-mêmes mm-hmm. man ce qui me fait mal dans cette affaire loolu kese mais que Sonko soit condamné ou pas nan lay yéenee suma moromi julit ñu koy tëj kaso mais s'il pose un acte boo xam ne vraiment moom xamal na boppam ne lii ma def waruma ko def par rapport ak fi suma tur yegg par rapport ak sumay ambition mhm. il devait assumer mhm. et, et épargner ce pays de tout ce que nous avons vécu et malheureusement defu ko quatorze mois mhm. et tey après c'est ce qu'on nous demande de faire faisons table rase sur quatorze morts parce que ki dee xëy na du sa mbokk du suma mbokk su suñu reyoon suma yaay dinaa du ma di bu ma nit di ñaan naan ma ndax nañu fàtte procès bi di boo amee pistolet sax dinga rey ki la wax loolu donc pensons aux familles de ces victimes la et pour ce ne serait que pour cette raison nous devons éclairer l'opinion si ce qui s'est passé si l'État est fautif qu'on sanctionne l'État ñu traqué ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci amoon responsabilité ba indi yëf yi mais si jamais Ousmane Sonko est responsable de la chose qu'on puisse également teg ko ci yoon comme ni nga xamee ne bu doon état moom moo ko defak ak ñi ñuy wax parce que moom nee na complot la mais donnons la chance aux Sénégalais de prouver que c'est un complot prouvons que ne Ousmane Sonko est coupable parce que comme ni ma wax ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes qui se sont battus pour lui parce que jeunes yooyu xeexuñu ngir nguur gi Ousmane Sonko taxoon ñu génn mais Ousmane Sonko man je me demande benn moment lan moo ne ci boppam. d'accord est-ce que bu tëddee dina nelaw. parce que loolu yëpp mënul am nga toog rek ne nemm tey xeex ay yeneen procès di réclamer yeneen dossier dossier yi muy réclamer yëpp dara ci mais bi dara tuuru il ne veut pas qu'on en parle c'est ça qui pose problème avec Sonko mais boo tegee loolu ce gars ne m'intéresse même pas. d' accord te ne nga xam nga ko bu baax. ah bien sûr c' est gis sa benn vidéo bu ah, viral sax dama ngay wax ni bi mu nekkee murit yàggul. xaw non mais dafa mosul nekk Mouride ñun ay taalibe lañ Pape yow mii mun naa seede ne ab taalibe nga fu tegoon kaamil ma waat ko parce que bu dul dara sax bu ma la fréquenté wul it gis am na fu ma la gis mhm. mais Ousmane Sonko je l'ai fréquenté. ñun ñuy demander ay autorisation pour dem màggali Touba il était contre même ça et ce qui me fait mal aussi loolu si la bokk xam nga man bu ma gëmul dara gëmuma ko man mun naa ne sa ab ceddu la yàlla suturaal na ma ba nga xam ne ragal naa borom bi sax am na loo xam ne dara jaral moo nekkoon seen supérieur ah non mais je vous dis Sonko gëmuloon loolu Sonko ñi ko xam ñëpp liñ ko xamee li mu doon dund na ko dund moi bokku de respect pour ces gens la nit aussi li mu gëm munoo toog ne ko gëmal lii rek parce que tey mun nga doon sa yéefar ñëw tuub nekk jullit loolu aussi mais assumel mais munoo ñëw man dama leen ne vidéo bi li nga ci dégg dama leen ne ay caméra ñu ngi Sénégal dina leen ne à partir de 2014 ba jëm si suuf nañ ma génneel Sénégal vidéo bu ñu seen Sonko Touba wala Ndiassane wala Tiwaawan ñu ngi ko gis bi mu xamee ne homme politique léegi pour nga falu ci réew mi foog ba kilifa diine yi xam la te moom gëmuloon lool bi mu xamee ne pour nga fallu ci réew mi il faut homme politique yi coalition wër la gëmuloon lool gëmu ko woon li mu gëmoon na ko incarné parce que ay nit ñu ngi koy tuddee ay ñoom Sankara ak ñeneen ñooy Sankara n'était pas comme ça il est buñ ko reyee c'est parce que ay conviction yam la tax Cheikh Anta Diop n'était pas comme ça mais un gars qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde moo tax ma ne la Pape yow am na loo gëm soo nangoo Sonko gëm la sa la mais man ma am lu ma gëm gis ku gëmul dara may nangu ñu teg ne kii moo ma gën du ma ko nangul kenn ak ku mun di doon et je peux le bu ma gisuloon lu mu teg ay fee yu tax ma mun a taxaw juger man ak su may fee ndax xam naa su ma bopp bu ma gënoon yées Ousmane Sonko yàlla mi ma tiim xam na ne li may wax ni yëpp du ma ko ko wax mais en toute honnêteté et je le en toute humilité y a même pas photo. ok y a même pas photo. d'accord